suñu Afia Bousso Muxtaar ak ci turu mbooleem ñi nga xam ne ñooy jëwri ñi jiite liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma bu Tuubaa di siyaare suñ mbokk yi yi bàyyi ko Louga di daayira Moukhaddamatoul Khidma bu Louga njiital Sëriñ Xaadim Taysiir ñu leen nuyu bu baax nuyoo jullit ak moroom jullitam di leen ziar bu baax ci weeru tedd bii di am mbégte ak contentement nag ci teewaay bii ndaxte lépp génnut liggéey Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji kon ci gàttal loo ñëw ci barab bi bàyyi ko Louga def si ab liggéey jëm ci koor gi kon dañuy bàyyi sëñ xaadim mi nga xam ne moo jiite daayira bi mu nuyoo ak mbooloo mi jotal ay kàddoom su paree sëriñ Abdou Wahab sa Cerno tontu ko ñu am na doo ñaan bismillah bismillah barki borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa daayira muxaddamatul xidma ñu ngi leen di bu baax a baax Eh, di leen baalu àq tamit ci weeru koor bi di leen ñaanal suñu borom doolu leen tawféex ak taysiir eh, di ñaanal eh, sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak wérle di tubaab nag di jéggul ci coono yi ak jotaay bu yàgg bi di wax ne rek tey dañoo jégawoon lu ko ñëw fi fas yéene lu ci liggéey bi nga xam ne yéen a koy taxawee fii ci jumaa ji mu liggéey bu kawe ci yoonu islaam di liggéey boo xamante ni wax dëgg yàlla fañ nekk ci Louga ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ñu ñu mel ñu ngi mel ne ñu ngi fi rek ndax saa su ne dañ koy bàyyi xel ci sell gi ak nu mu tegoo ci yoon mu bokk nag suñu programme ndax daayira mu xaddamatu xidma bii section Louga euh, di ñaanal suñu Mahmadan Mbàkke moom it mu yàgg fi loolu te ànd ak wér wér la ci soññ gi ñuy soññ ak teg gi ñu ci teg ci yoon ngir ñu topp leen tamit euh, di leen déglu euh, daayira bii di mu xaddamatu xidma bi féete Louga yitteem yëpp li jëm ci jumaa ji la daanaka suñu yitte yëpp amuñu beneen eh, suñuy waxtaan loolu la suñuy daje loolu la eh, moo moo war a tey ñu ne tey fu ñu mën a def rek ñu takkatoo jóg ñëw fekk si leen ci liggéey bii eh, indi suñu barkeelu ci liggéey bi ndax wax dëgg yàlla murit yëpp bëgg nañ ci taxawaay bi rawatina ñun ñi nga xam ne dañoo jaxasoo ak yéen te bi ñu jaxasoo ak yéen ak léegi boobu ba léegi ñu koy wax wax nañ ko fu nekk dañoo gis ak yokkute gis ak dal ndax ci xam-xam ak teggin ak yar rek ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ñu teg loolu dañ ciy santaat bu baax a baax a baax di wax nag daayira bii nga xam ne euh, ñoo ànd bokk liggéey bi dafa am ay borom yu métier yu ci nekk ñu am fu ñu nekk nag euh, jóge foofu bëgg am jéego yu ñu def soxla si seen ñaan ak seen xam-xam ak teg ñu ñu teg fu ngeen ci mën a teg rek ñu doxee ci ndax ki nga xam ne mooy suñu sëriñ euh, di sëriñ Mouhamadou Mbacke lim ñu lim ñu wax lu leer la fu ngeen fekk lu baax jarul ngeen di tàggoo ndax daa mel ne ngay rëbb ci àll ba gis li nga war a jam nga diir ko ba ko jam ne xaaral ma teg li ma koy jamee dem laaj ndigal nee soo soo ñëwee doo ko fa fekk am ay borom métier yu ci nekk di ay maître maçon maître miniser métallique maanaam métier yëpp ay kilifa yi yoo xam ne ñoo ñoo nekk ci métier yooyu ñoo ñoo nekk ci jotaay bi ñu bëggoon dajale loolu nag dafa am liggéey bu ñu ci def di ci liggéey di am ay liggéeyu kawe yu jëm ci métier bu dee menuisier métallique bu dee mason bu dee lu mu mën a doon ñooñu ñu am ko daara ji am ko jox ko ñu nekk ci biir daara ji di ko liggéey loolu ñu indiwaat ko di ko defaat fii ndax loolu rek mooy suñu yitte ba ci lu jëm ci ay tool ak lu nekk waaj nañ ko ngir fas yéene indi ko fii ci liggéey euh, jumaa ji ndax loolu képp mooy suñu yitte suñ borom dogal nag ñu dajaloon ab addiya bu toll ci téeméeri junni waaye ñu ngi tuubal suñu borom ci kàddu gi ni ñu koy yëkkatee ndax maanaam xeeb nañ ko lool sax lool te dis nañu lool tamit ci wax gin koy wax nii daa fekk ne eh, ba tey rek lu bi faral di wax rek lu baax das koy fesal lu bon moom mënees na ko nëbb waaye lu baax das koy fesal ndax ñu mën cee roy waaye loolu moom ñu ngi ci tub bu baax a baax te di ñaan tamit suñu borom yàggal leen fi lool te ngeen ànd ak wér ak wérle waaw di wax naa daal maanaam liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy tàmbali te suñ yitte yépp di lépp loo xamante si génn ci wala lépp loo si ni taxawee nañ ko rek mu jëm si fii ndax gis nañ ne fii nii mooy mooy mooy suñu mooy suñu lépp ñun amuñu beneen amuñu leneen lu ñuy def lu dul liggéey jumaa loolu tax ñuy daje loolu tax ñuy ànd suñu wootee loolu la ñu wootee kon loolu tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci ñaan di sàkku seen xam-xam ak seen i xalaat wax na ne ñun saa su nekk yéen képp la ñuy déglu di sàmm nag suñu bopp nu ñu mën. ngir taxaw bi ñu taxaw fi ba ba ba ñu gis ñu fi sax wala kenn xàmme ñu fi ba du kenn duñu fekk ci leneen kenn duñu gis ci leneen ak su dul noonu loolu luñ ci mën ñu ngi koy def kon ñu ngi tub bu baax di jégalu ci kàddu gi ñu yëkkati di leen ziaraat bu baax a baax a baax a baax jërëjëf bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ xaadim ñi ngi lay nuyu di nuyu waa muxadimatul xidma bu Louga yéen ñi fi teew ñëpp góor ñi ak jigéen ñi di leen yóbbante nuyoo tamit ci sëriñ Mouhamadan Mbakke moom Cheikh Mouhamadan Mourtada di leen ci yóbbante it ab siyaar ak um ndokkeel ci weer wi di leen nuyu it ci turu sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma ak kilifa yi nga xam ne ñoo ko fi wutu te too teew ci jataay bii suñu ci tuddee sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy secrétaire sénéral bi ak sëriñ Fallou ak sëñ Ablaye Diop ak ñu fi teew ñëpp rek di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd wi di leen balu aq di leen balu aq di am mbégte lool ci teewaay bi ak pastef bi ak kàddu yi di sant it ci jiitu ak jëfi tey jii jëfi tey jii nga xam ne ni nga ko waxee ne dafa xeebu déedéet lu rëy rëy la ndax yëg-yëg bi nga xam ne mooy am toujours ci yéen ci niñ leen di ràññee ci biir liggéey bi fii ci pësteef bi ak ci dal gi ak nangoo wammatu gi ci ci nangoo wammatu gi di xool melokaan yi nga xam ne daayira bi ñi ngi koy doxe ci liggéey bi ngeen di ci ànd ak jëwrin yi loolu lu lu ñu lu ñu bàyyi xel la muy lu am solo loo xam ne ñun ñi nga xam ne dañ cee nekk jàpp naa ne tawféex Sëriñ Tuubaa la ndax ay nit bëgg nañoo nekk di liggéeyal sëriñ bi ci jumaa ji te mu jafe leen tawféexi sëriñ Tuubaa it ci bi la sëñ bi baaxee nga bokk ci ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal di ko mal te sëriñ bi digge ci yu rëy rëy gis nañ Sëñ Tuubaa ci xikma muy muy wax ne muy wax ci xidma ñetti mbir yoo xam ne li mu koy wax bariwul mu ne ki nga xam ne dafa fonk jaamu yàlla fonk xidma muy comme lii ngeen di def di jël seen alal seen temps seen xel seen doole di ko def ci jamono joo xam ne da ngeen koy def ngir yàlla rek te yàlla tax te séntuwu leen ci payug léegi payug yàlla rek ngeen ciy séntu loolu mooy xidma mu ne képp koo xam ne fonk nga jaamu yàlla lool sàmmonteeg waxtu yi juróom ak yi suñ suñu borom digle ba noppi di ma kooku su ëllëgee ci tànnee fi suñu borom yi ngay bokk maanaam ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne danañ mën a tinoo mu ne ki nga xam ne taxut mu fonk jaamu yàlla waaye fonk na ma lool kooku des na ko isaab àddina waaye day dugg àjjana bi xayri isaab ci àllaaxira waaye àddina xëy na te loolu li ko sëriñ bi wax bariwut mu ne nag ki nga xam ne fonkul jaamu yàlla xidmawut kooku moom jotewu ak moom dara kon yàlla ñu yàlla musal ci ci kooku loolu kon ñun suñu borom am na am na am am am nañ tawfeex ci ci bokk ci loolu beneen bi ci des mooy am nañ tawfeex ci ni niñ koy faral di waxe ci am yëg-yëg ci bëgg sëriñ bi ci sopp ko te loolu tamit am na daraja ju kawe kawe ju ci am muy bëgg Sëriñ te firnde it am na ci am na kilifa gu baax goo xam ne ci waa Ndar la bokkoon ku ñu wax sëriñ Basiiru sa jànq nga xam ne ci magi njaareem yi mënoon na alxuraan tamit daa bokk ci ñiy jàng alxuraan foofu ci njaareem dafa juddoo Ndar am nationalité France ñu waroon ko recruter mu dem soldat biñ ñëwee ba agsi war koo jël bëgguta tàggook sëriñ bi mu bind ab leetar sëriñ bi sëñ Amadou Lamine Diop Dagana nee na moo yóbbul leetar bi jox ko sëriñ bi mu ko bindee leetar ayib alquran la ci la ci def rabbi sijjina ahabu ilayya mimma yad'uni nii ilay li Seydina Yuusuf waxoon soxna sa ko doon tuumaal bi mu ne ko da ngay def li ma la wax boo ko deful danga dugg kaso nanga nanga mu de dem féeteeg boroom kaso bi moo ma gënal ma def li may defloo mu mel ne dafa cax sëriñ bi ci ne ko dem defi soldaar wuy ji sama borom daal moo ma ko gënal may tàggook yow bi sëriñ bi yónnee ndaw ndaw di ko woolu dañu ñëw fekk ko mu sàngu ci biir daare kaamil ñu fekk ko mu tàggoog bakkanam mu faatu kooku nag xam naa sëriñ bi da cee jubluwoon a jàng jàngale sopp ko li muy jariñ bi ñu waxee loolu xibaar bi sëriñ bi sëriñ bi dafa digal kilifa ya fa gën a mag ne leen na ngeen ko dem waajale muy ña fa nekkoon ñu demee waajal ko bay ñëw biñ jubee sëriñ bi sëriñ bi dafa muuñ bay jël kaala gi di teg ci ci ci ci ci gémmiñam ñëpp kenn ñi mu wut wax mu daan na ah, xanaa jaaxal jaaxal jaaxle ngeen ñu ne ko waaw jaaxle nañ de bàkki mu ne waaw Basiiru Siise sa jànq de ay mbiram moo ma jaaxal ndax bi nga xamee ne ñaari malayka yi ñëw nañ di ko laaj ne ko ndax xam nga sa boroom xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da leen a gëdd ne loolu ngeen may laaj jóg leen foofu bañ ne pëccet di daw loola mooma muuñ loo loolu nag lu wér la loo xam ne sëñ moom lim jëb dagana moo ko nettali mu amee ci njaareem te loolu sopp Sëriñ Tuubaa ak bëgg ko moo ko may kon am na daraje ju ci am li ngeen waxit nag ne ci wàllu métier yi ak yi ngeen di yëngu yépp te di ci ñaan ak yokk akuk xéewal akuk avancé loolu moom lépp mi ngi ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa wax di xawaaiji lazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu ku bëgg alal liggéeyal Sëriñ Tuubaa ku bëgg gudd fan liggéeyal Sëriñ Tuubaa ku bëgg avancé ci sa métier liggéeyal Sëriñ Tuubaa ku bëgg xam-xam liggéeyal Sëriñ Tuubaa wa hablahum maaraamu la yow daal mi ngi aju ci yow ci sa pas-pas fan nga tollu ci sa digganteeg sëriñ bi ak lan nga ci fas loola mooy li wér kon suñuy mbir mi ngi aju ci suñuy pas-pas kon yàlla ñu yàlla musal ci seytaane ak ndog ba li ñuy def rek mu doon loo xam ne luy lu ñuy bañ a gis suñ bopp lay doon mu doon jëf ju sell yoo xam ne sunu borom dana ko boole ci jëf yu sell yami nangu te sunu borom xiirtal ñu ci lu baax te bañ ñoo dugal benn jiixi jaaxa ci sunuy mbir ba nga xam ne lu ñu def rek dañ koy def te yàlla tax jàpp naa ne daal loolu mooy mbir yi nga xam ne suñ ci saxee danañu am liñ bëgg kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm te di leen ñaanal di leen ñaanal ni taalibe sañ a ñaanale moroomum taalibeem muy jéego yi nga xam ne dox ngeen ko te sëriñ bi rek tax te yàlla rek tax jóge Louga ba ñëw fii ngir jëmmi yàlla ak jàpp ci liggéeyu Muxaddamatul Xidma suñu borom ful ko yéen ñi ñëw ak mboolem koo xam ne ma nga fa jàpp ci liggéey bi te defal ñu taw feex ñun ñi ngeen fi fekkit ba ngeen yàgg ñu fee fekk ñu yàgg ànd liggéeyal sëriñ bi te sëriñ bi nangul ñu liggéey bi barakati xaadim rasul ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di tënk kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu